أعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصرة والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص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 ñëwaat nañ tey ji ci jataayu gëstu bi ngeen tàmm am ak kaddu diine ji di ko amee fii ci 2STV bi rawatina nag jataay yi nga xam ne kaddu gi sumb na koo amal bi koor gi dooree ba léegi te mu aju ci nitu yàlla ku màgg kii ay waxam ibnu ataayilay asakandari tey jii kon incha mooy nekk jataay bi mujj ci jataay yooyu ci weeru kooru ren wi ñu ñaan yàlla borom bi tabaraka wa taala mu may ñu beneen weeru koor fekk ñu fi te ñu am tal ak wér ak man koo def incha allah su ko defee tey dama ñëw di indi ma boo xam ne gat guddul trop ndax dafa ñëw di mottali yenn déggin yi nga xam ne dafa aju ci déggiinu xikam yi ko jiitu su ko defee duñ ci yàgg trop ñu ubbi téléphone bi su ko defee ñu ndokkalente ci Eh, nangu gi nga xam ne moom la ñu borom bi wala boog séntu gi ñu séntu borom bi tabaaraka wa taala nangul ñu ko suñ jaamu yàlla gu gi ñu nekk te di séentu mu jeex tey am na sax ñoo xam ne seen bos jeex na dem ñu jokkalante ci euh, ndokkalante ci incha allah euh, xikma bi mooy al xikmatu al thaalisatu baad al miati te mooy téeméereelu xikma ak ñett ibn atayi lay sakandari di wax ne man zanna man zanna infikaaka lutfihi an qadari fa dalika li qusuuri nasari man zanna infikaaka lutfihi an qadari fa dalika li qusuuri nasari mu ne képp ku jort ne yàlla ñeewantam gi nekkul ci dogalam yi taqoowul ak dogalam yi sa gisin lu gàtt la képp koo xam ne dangaa jort ne ñeewantu borom bi dafa taqalikoo ak dogalam yi yow ku gàtt gis-gis nga loolu mooy rek li ñu wax fan yépp te moo di ne borom bi tabaraka wa taala li muy teg doomu aadama bi lépp ci xikma la aju tey nag dañoo ndax xikma mën na ànd ak mën na bañ a ànd ak yërëma yërëm yërëm mën na ànd bañ a ànd ak lutf waaw laa biir wala ñeewant xikma mën na bañ a ànd forcément ak ñeewant loolu moo tax mu ñëw jox ñeewant gi cëram ci dogalu yàlla yi kon dogalu yàlla yi ci xikma lay amee waaye du amee ci xikma dong dafay ame ci xikma ak ñeewant non seulement li yàlla dogal ci yow dafa gën ci yow waaye na mu gën a woyofe ci yow la la ko tege aussi loolu mooy lutf bi euh, al imam al ghazali rahimahullah ghazali bu mag ba borom ihya wa ulum din da wax ne al latifu huwa dhaka alladi ya'lamu daqa'iq al masalih wa ghawamidiha ثم يسلك في إيصالها إلى المصلح مستصلح سبيل الرفق دون العنف Imaam Ghazali neen al latif ki ñu tuddal latif ku ñeewant mooy koo xam ne dafa xam mboolem sew sew njariñ yi ak intérêt yi mboolem xóot xóotu njariñ yi ba pare yoon wi muy jaar ngir jox ko ki ko bëgg jariñoo nekk yoon wu yomb woo xam ne du ànd ak fët-fëti du ànd ak coxorte du ànd ak diis kon baatu latif dafa ànd ak dafa am ñaari dimension dimension bu njëkk bi mooy na mu gën a na mu la gën a jëriñee li mu lay li mu lay teg na mu la gën a jëriñee la la koy tege waaye bi mu la koy teg itam na mu gën a woyofee la koy teg loolu mooy allatif moo tax fa ida ijtama rifqu fi lfili wallutfu fi lidraki tamma maana lutf moo tax bu fekkee ne ci wàllu nammeel ki ki ki ki ki bëgg a def jëf ji ki bëgg a jëf-jëf ji dafa li mu da ko li mu bëgg-bëggam mooy mu nga nga jot le maximum possible ci njariñ li ki teg natt bi wala ki lay teg jëf ji su fekkee bi mu la koy teg dafa caa wut na mu gën a xóote ci njariñ ak na mu gën a woyofe ci diisaay kooku mooy ki nga xam ne mooy moo am lut fu dëgg kooku nag du kenn ku dul borom bi tabaraka wa kooku daal du kenn ku dul borom bi tabaraka wa taala loolu moo tax borom bi tabaraka wa lu mu la teg rek dala ko dalaa teg na mu la na mu la gën a jëriñe waaye dala koo teg na mu gën a fe loolu nag loolu moo tax borom bi tabaraka wa di wax ci alquran allahu latifun bi ibadihi latifun bi ibadihi waaye yarzuqu man yashaa tekat kat wa huwa alqawiyu alazizu latifun bi ibadi yàlla dafa ñeewante xeet bi dafa ñeewante jaam ñi daf leen a yërëm daf leen a ñeewant waaw daf leen a yërëm daf leen a lu mu leen di teg lu nekk na mu gën a woyofe la ko tege waaye lu mu leen teg lu nekk na mu gën a amee njëriñ ci ñoom la leen ko tegee ndax moom yarzuqu man yasha ku fi dund moo la jox loo dunde wa huwa alqawiyu al aziz mooy ki am kattan mooy ki të su ko defee loolu nag euh, du dàqwanteeg li la yàllay teg léeg-léeg mu métti léeg-léeg mu tar ànd ay tar-tar ak i métti wax naa ko ne dogalu yàlla de dana métti de dana métti ndax loolu ci yow la yow yaa attanul dara lu ñu la teg rek mën na laa métti waaye nag dogalu yàlla ci ko xam yàlla du ko naqari de du ko naqari joxe woon naa ci misaal eh, démb bañ ci tolloo eh, su ko defee kon bul déggee ci wax ji ne yàlla ku ñeewante jaam yi la ne yàlla du tege lu métti ndax lu métti loolu ci boppam ñeewant ci boppam mën naa ñëw nekk lu métti cest à gi mën naa ñëw nekk lu métti euh, moo tax heure bu yàlla nattoo jaamam mu nattoo ko ñàkk gannaaw bi mu oomalee wala mu nattoo ko feebar gannaaw bi mu wéree lu yàgg wala mu nattoo ko ay jafe-jafe gannaaw bi mu féexee ñu bari ci ñun pour ñu fii dégg loolu lu jafe lay doon euh, moo tax léegi métit boobu il faut mu am solution il faut nga amal ko solution solution bi nag mooy li ñu waxoon keroog te mooy nga comprendre borom bi tabaraka wa taala bu dee ci xikma yi wane woon nañ la soo xoolee fii sa borom jaar ak yow nga xool li mu la defal xool fi mu la féete doo am sikki sakk mukk ne jamono ju nekk na mu gënee la la defale kon nag bu tegee boo demee ba jamono yu mu teg lu lu lu bakkan attanut dangay jàpp ba léegi ne la xewoon moo xewaat ba léegi na woon foo woon la léegi njariñ li tey moo laaj mu métti njariñ li tey moo laaj mu métti waaye njariñ li jógewu fi ndax loolu rek moom la borom bi jublu ci lépp lu mu la teg su ko defee loolu nit mën na koo dégg léeg-léeg nit ñeewant la ba pare def la lu métti walla nit mën na laa def lu métti fekk daf laa ñeewant ñun misaal bi ma ciy joxe misaal mu ma dund la biñ nekkee ay taalibe di jàng njël di jàng nga xam ne lu jiitu fajar waxtu waxtu wala waxtoo genn wàll lu jiitu julli fajar lañ lay yee nga dem ca jàngu ba taal matt di di jàng léeg-léeg teel yeewu gi ak guddee tëdd gi day jur ngay nelaw ngay nelaw te sëriñ daara bi du nangu ngay jàng di nelaw ndax jàng àndut ak nelaw léegi bu déggu sa baat rek dafay xam ne da nelaw te bu boowatul na ma lay yee dana xaw a yéeme ndax boowatul yar bu safa safa saf la lay dóor léegi taalibe bi nga dendal te moom yàlla def nelawul sooy nelaw mu yëg sëñ bi di ñëw da lay da lay def coup de bu saf da lay yëg ne la coup bu safa safa saf coup de boobu moo lay yee nga xam ne sëriñ baa ngi ñëw coup de boobu li muy saf saf saf yërëm yërëm laa tax mu dóor mu saf mu mu mu def la ko ndax xam na ne li coup de poing bi safa saf yar bi la sëriñ bi nar a dóor ko gën a saf kon taalibe bi nga delloo sa xarit la ndax mënoon naa bàyyi rek sëriñ bi ñëw ñëwal boppam fajal ko boppam waaye moom dafa jàpp ne mu mu mu teg la lu gën a néew coono li la sëriñ bi teg loolu la yërëm ma ne gim la ëmbal di tekki kon borom bi tabaraka ko taala lut foom bi lut foom bi du teg tekki ne du la teg benn métti métti ankay leeg léeg lut fu bi moo lay yóbbu ci mu teg la lu métti ndax ndax nag nga dellu sa xel nga delloo si sa xel ci yoon woo soobu te mu nar laa yóbbu ci musiba mu gën a foor gën a garaaw natt bi mu la teg wala coono bi mu la teg la léeg-léeg borom bi jox la alal nga nga dem ba fàtte li taxoon mu jox la ko nga commencé di jëfandikoo ci alal ji jëfandiku woo xam ne du la jural jàmm su boobaa borom bi léeg-léeg da koy retiré da koy nanguwaat ba nga xam ne alal lu am solo la kenn waru koo foye nga delloo siwaat sa xel xool ba xam fi nga jaaroon foofu la am déet bët bu set nga dégg ku naan su ma amoon la ma amoon du ma defoot na ma defoon bët bu set nga dégg ku naan su ma amoon la ma amoon du ma defaat na ma defoon ndax alal ji bu bëree te yàgg sa sa loxo soo deful attention da nga ko yóbbu fu mu warul a dem danga ci jëfe loo war jëfe su boobaa nag borom bi ci yërmandeem ak ñeewantam da koy nanguwaat ba nga dellu nga xool ndax fa nga na nga doon doxale noonu lam den ndax su fekkee ne da ngaa jëloon alal ji di ci wut tur di ci wuttur wutuloo ci yàlla wutuloo ci dox mbokk xanaa tur nga ci bëgg da nga ko jox ku ko yellowul ba tey ñu naan la ñaali gay naa ku daan jël doo moroomu gaa yi doo seen moroom yaa fi nekk man boo fi nekkuloon ma jóge fi yaa tax may dund wax a wax a wax ba nga gëm ko loolu du jëm kër loolu jëmul kër ndax ki koy wax waxul dëgg waxul dëgg ki koy waxul dëgg sa alal la soxla kooku nag pour nga comprendre ne waxul dëgg boo continuer di am alal mu continuer di nga continuer di ko ci jox mu continuer di wax li muy wax doo xam mooy kan waaye bu ñu retiré alal bi mu ñëw benn yoon joxaloo ko mu ñëwaat joxaloo ko mu def enquette ñu xamal ko ne dangaa ngaa xaw a loof doo ko gis dootoo ko dégg soo watul sax nga dégg ci moom kaddu yu yoo séentuwuloon ci moom ndax xamoon nañ ko ndax moom da doon foye alal ji da doon fokkat rek léegi fooy na alalam ji jeex na euh, mu torox ko comme ñëpp bët bu set nga dégg ko mel noonu koo xam ne ba nga manee sabab lu mu yëkkati nga dagg ko fu mu lu mu lu mu xëcc nga dagal ko mu laan mu laan na ñaala gay naa ko ku daan jël doo moroomu gars yi nga defoon ne li mu wax dëgg la ci moom nga continuer ba yàlla retiré alal ji pour yee la nga door koo xàmmee nga gis ne dootoo ko gisati boo dajee moom ne ko saa waay giñ naa la gis mu ne jamono jee rek ja yitte yitte ji moo moo bëri yëgal ma rek ne yow de waru maa gis ci yow yàlla xamal na ne ki nga doon doxal yàlla yàlla wu ko loolu jar na ko loolu jar na ñàkk ab biir ba xam xammee ñi nga séqaloo ndax say nawle lañ wala déet ah su fekkee nag fa ko doon def foofa la su boobaa borom bi tabaaraka ko taala da lay bàyyee alal ji ndax day xam ne tiyaabo dong la lay dolli kon léeg-léeg <coughs> ngeen jégal ma <coughs> retiré bi yàlla retiré alal ji gannaaw ri bi nga amee yow la arrangé loolu lutfu la loolu ma yërmande tax bu def ko ndax yow ku la bàyyee woon ak sa bopp nga alku ndax koo xam ne sa alal ñi ngi koy jox defuñ la nawle ndax ku la jay rek defu la nawle ku la jay rek defu la nawle ndax ku la jaw jay rek daa xeeb sam xel dafa jàpp ne mën na laa nax moo tax ku la jay rek du sa nawle su ko defee borom bi xamal la ñooñu xamal la ne fi nga jaaroon du foofu ba bu ëllëgee boo jotaatee alal ji nga jaarale ko ci yoon kon retiré boobu mu retiré alal jooju lutfu la ñeewant la yërmande la yërmande la même bu méttee yërmande la ni ki noonu ci wér gi wér gi itam léeg nga am ak wér goo xam ne doo xam lu muy tekki nga jëfandikoo wér gi foo xam ne fu mu la dul amele njariñ la boo ca naree xaabaabal yàlla retire wér gi nga feebar ab diir ba xam li wér di jëriñ nga xam ne boo ko jotatee da nga ko def fu jariñ kon borom bi tabaraka wa taala mooy latif moo tax ibnu atayi lay ne soo jàppee ne soo jàppee ne dogalu yàlla yi dafa ko ak yërë ñeewantam gi parce que sa gis-gis xóotul ku sa gis-gis koot di nga xam ne dogali yàlla yi dafa takkoo ak ñeewante borom bi tabaraka wa taala su ko defee xale yi mën nañoo daanaka tàmbali léegi affiché numéro yi su ko defee mbokk yi doon topp émission bi ci weeru koor yëpp te daan am yéene dugg si euh, te yàlla dogal ñu doon bañ a dagg léeg-léeg waxtaan wi ndax léeg-léeg waxtaan boo ko boo ko daggee ci yenn bërëb yi njariñ li nga ci séntu woon doo too ko ci am ndax message bi bu bu daggee ñii la doon topp mën nañ loo réer loolu moo tax léeg-léeg dañuy far continuer ba jataay bi jeex waaye comme tey incha allahu mooy bis bi ñu mujjee ak yéen ci kooru ren gi eh, yàlla bu mu nekk suñu mujj koor danañ leen may occasion boobu incha allah ku ci am yéene woon dugg si di dolli eh, ci liñ fi waxoon ci gannaaw yépp wala waxtaanu tey wi wala mu am lu muy jubbanti ñu may ko occasion boobu mu jubbanti ko incha allah su ko defee kon borom bi yërmandeem ak ñeewantam moo tax léeg-léeg mu teg ñu lu métti léeg mu xañ ñu gannaaw bu ñu amee léeg-léeg mu teg ñu feebar gannaaw bi ñu wéree léeg-léeg mu perturber suñu dund gi gannaaw bi ñu amee sécurité ak ak dal am nana nag koo xam ne moom am na nag koo xam ne moom alalam du wàññeeku ak lu mu di juba di alalam du wàññeeku te mooy koo xam ne dem na ba joxe firnde ne moom dafa rëy moom sooraalewul yàlla faalewu ko ki nga xam ne sóoraalewul yàlla faalewu ko jàpp na ne yàlla du dara ci am amam bi ay pexe boppam a ko tax am ku ma mel noonu moom lu mu am lu mu soxle ci alal yàlla jox ko ndax bëgg bëgg yéene yi mu wala bëgg bokk ni mu ko nar a fayee ci mbugal mu am fu mu ko teg ci ay tooñ bëgg mu yokk ay tooñam yokk ak ndëngiteem ba bu ëllëgee bu ko tegee mbugal mbugal moomu mu am fu mu ko teg bismillah asalaamaaleykum bismillah asalaamaaleykum asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu waaw Pape Dame yàlla na yàlla nangu ziar bi yow la kan. waaw man la As Kebe. As bismillah Kebe foo dëkkee. man Mbour laa lay woowee man. bismillah As bismillah As naka waa yëpp. waaw ñu ngi si ma si jàmm bismillah As. waaw la di la di yàlla na yàlla nangu yàlla na yàlla nangu ñu bokk. di rafetlu di waxtaan fi yëpp am na solo. li doon tam waxtaan yëpp macha allah yëpp am na solo. jërëjëf jërëjëf As jërëjëf. jërëjëf ndokkeel. jërëjëf baax di la delloo ndokkeel googu. di ñaan yàlla mu nangul koor gi na ñu jamu yàlla yi jaamu ci koor gi. allahumma amiin. sàmm ñu sàmm njaboot gi. allahumma amiin. jërëjëf Kébé jërëjëf Kébé. jërëjëf Kébé. da koy sotti rek ba mu doyal yàlla ngi wax ci alquran sóoratu qalam. aaya ñaa ñeent fukk ak juróom fa darni wa man yukadibu biha bi hada alxadis fa darni fa darni wa man yukadibu bi hada alxadis sanastadrijuhum sanastadrijuhum min xaytu laa yaclamuun wa umli lahum inna kaydi matin fa darni wa man yukadibu bi hada alxadis bàyyi maag ñi jàpp ne alxuraan wérut dëggut du dëgg bàyyee ma ak ñi ñiy weddi alxuraan ñiy weddi gëm yàlla ñi lay bàyyi ma ak ñoom danaa leen yoll ngar danaa leen yoll ngar te mooy danaa leen yombalal may yàlla mooy yàlla danaa leen yombalal bismillah bismillah yàlla yàlla nangu ziar bi. waaw la kan. Mor Thiam Tambacounda. sëñ Mor da def Thiam. asalaamaaleykum Ndiaye. naka waa Tamba yëpp. ñu ngi si jàmm ñu ngi si jàmm baa kenn tawatul Thiam Thiam bisimilah Thiam. bisimilah. waaw ah, di rafetlu émission yi rek. jërëjëf Thiam jërëjëf Thiam. ñaanal yàlla nañu ko yàlla boole Thiam. suñu borom yokk xam-xam bi. ci barke yonent bi amiin ci barke bi Thiam. wax dëgg yàlla si émission yi moom chaque jour dañ ko dañ ko ci wóor. jërëjëf jërëjëf Thiam jërëjëf Thiam. jërëjëf Thiam. ñaanal rek yàlla nañ ko yàlla boole yàlla nañ ko yàlla boole Thiam ñu bokk. jërëjëf ñu ngi nuyu waa Tamba yépp yàlla na yàlla barkeel dund bi. su ko defee borom bi tabaaraka wa taala ne man maa leen di yolla ngar yolla ngar mooy fiir maa leen di fiir ndax ñu mën a yokk seeni bakkaar ba mbugal mi ma leen denceel ma am fu ma ko teg wa umli lahum dama leen fii bàyyi itam nag du ma leen waaye li am solo mooy inna kaydi matin man kenn mënu ma rëcc man kenn mënu ma rëcc donc lu lu jar ma fi yàkkamti amu fi ndax moom doo ma rëcc day wax ne sàcc bu raw jarul yàq nelaw sàcc bu raw jarul yàq ay nelaw xanaa sàcc bébam duggee ci kër ji fekk waa ji teg fa fiiru fiir yu rëy yooyu ñu daan fiire mbaam àll yi mu yor bëñ yu rëy yi nga xam ne boo ko laalee bu keppee sa tànk bi bootu mën naa dagg ba mu ne ñuux ci nëg bi teg tànkam ci fett gi ci fiir gi fiir gi rax jàpp tànk bi mu yuuxu yuuxu kenn faalewu ko mu mujj naan borom kër gi jógal sa kër gi jàppal na la sàcc bismillah asalaamaaleykum Pape. aleykum salaam wa rahmatullahi wa kan. man damay leb tudd nit. Ah, waaw lebal la ko la ko bisimilah <laughs> la ko. Ndiaye dafa am lool. jërëjëf jërëjëf. ne borom bi ah. la. dëgg la dëgg la. ma dund ci firnde bu <laughs> sama xel dem ci li nga xamante ne bu borom bi tegoon sama kaw mu ma ñàkk sama liggéey. est bismillah na ñu koy gisee coono. waaw wala jafe-jafe wala métit muy ndimbal la. dëgg la ndax mën na la fekk ci lu dul yoon mu génne la ci. da génne ndimbal la bu la daal jës bu. dëgg la am na ñu borom bi moo di jës bu boppam. dëgg la la. nañ yàlla bu baax. ñaanal yàlla borom bu yàggal taxawaay yi. amiin ci barkanti amiin. émission yi am na solo lool. jërëjëf jërëjëf ñaanal jiitu yàlla yi ñu am ak dégg. amiin yàlla ñu ko al defal. ndax dégg gi topp gi nag moo ci ëpp solo moo ci ëpp solo moo ci ëpp solo. moo cëpp sa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf mbokk moomu amin ci barkante bi amin ñu bokk amin ñu bokk jërëjëf mbokk moomu jërëjëf li mu wax lu am solo la Euh, moom nee na daf ko am na ci lu mu dund loolu lu am solo la su ko defee sàcc boobu naan muy borom kër gi jógal sa sa kër gi jàppal nañ la sàcc xam nga kooku ba muy ba mu la muy wax loolu léegi ñàkk pexee tax borom bi tabaraka wa taala nag moom itam ku ko sàcc dooro moo tax daf naan wa umli lahum inna kaydi matin mu wax ci surtu xijr ne darahum yaakuluun wa yatamattaun wa yulhimul amal fa sawfa yaalamuun bàyyi leen rek ñuy lekk ka naan ak noos defe ne àdduna du jeex waaw su ko defee ma bàyyi leen rek ñuy rafet jor ci ne danañ fi yàgg man naa leen fi bàyyi sax ñu yàgg waaye fa sawfa yaalamuun bis bu ñu dajee maag ñoom danañ xam ne fi jaaroon du foofu bis bu ñu dajee maag ñoom danañ xam ne fi jaaroon du foofu kon ki nga xam ne moom dafa rëy yàlla na yàlla musal ci rëy rëy mboolem gaaf yi rëy ci gën a bon yàlla nañ yàlla musu yàlla nattoo benn jàmm dafa sew nag dafa sew léeg nga rëy te yow doo ko yëg léeg nga rëy nag te doo ko yëg dafa sew lool dafa sew lool waaw yàlla na ci yàlla musal jam ñëpp yonent yàlla Muhammad nee na bu yowmal xiyaamee ku ci indaale lu toll ni luy ñuul ci we dana la la jël witt dana la jël witt yàlla na yàlla musal ñu ci rëy moo tax kenn ku nekk ci ñun war na ko di ko di ko di ko saytu di xool di xool ay jëfam ba xam ba xam rëy raxu ci waaw di xool bu baax ay jëfam ba rëy raxu ci ndax rëy dafa sew ah ah benn nit yàlla mi ngi wax ne rëy sew na sew na goo xam ne bu la yàlla dogalee ngay nitu diine ñaare soo deful attention rek da nga danga nga da nga rëy te doo ko yëg c'est-à-dire boo dee koo xam ne yow nit ñi dañu laa séentoo mbaax séentoo la mbaax xam nga nit ñi boo leen féetoo ci diine dañuy def ne ko baax nga wax dëgg yàlla ku am diine tam daa war a baax bu ñu lay séentoo mbaax dañ lay teral dañ lay teral ku la gis teral la ku la gis rek dana la teral ndax ku la gis li mu lay njëkk a def mooy may lay teggin su mbir dee benn ñu jox la ko léeg nga ñëw ci jataay fekk jataay bi fees ngay kilifa soo deful attention rek da nga jëfandikoo sa rëy gi da nga da jëfandikoo ak rëy ndax soo jàppee ne nit ñi dañoo war a jóg nga toog waaw léeg mu dal nit nga dem ci béréb say nawle dong nga fa nekk waaye yow wàccuwaay bi nga am ci nit ñi tax nga defe ne nga tax nga defe ne ñëpp fokk am ku jóg nga toog bismillah allo asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa imaam maa ngi lay ziar lu bëri. yàlla na yàlla nangu ziar bi yow la kan. Mamadou Medor. Mamadou Medor na nga def. maa ngi rek di am dëkk rek ci waxtaan bi. macha allah jërëjëf Medor jërëjëf Medor. ndax ndax li nga waxtaan yëpp njëriñ lañ ci bi. jërëjëf Medor jërëjëf Medor. jërëjëf Medor. programme programme de ci koor gi yëpp. di leen jaajëfal wax dëgg yàlla seen taxawaay na. jërëjëf jërëjëf Medor. bu bu meloon ni yéen daal vraiment kontaan kontaan nañu lool lool lool lool seen taxawaay. jërëjëf Medor jërëjëf Medor. vraiment xam-xam bi leer na wax ci set na vraiment. am nañu mbégte lool lool lool. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Medor yàlla na yàlla ci barkeent bi amiin Medor. dina ñaanal ko yàlla boole yal nañu ko yàlla boole Medor. kontaan naa lool. jërëjëf jërëjëf Medor. ku baax nga ma Mamadou Medor ku baax nga wax dëgg yàlla Sénégal yëpp la ràññee ñëpp la ràññee ndax woote yi ngay woote ci rajo yi man de wax dëgg yàlla musuma dégg nga woote wax njaaxum wax yàlla xam na ko musuma ko ah xëy na am na mais yëguma ko musuma dégg nga woote fekk ma déglu ko nga wax ci njaaxum wax dëgg yàlla boo wootee lu baax rek laa dégg ngay wax yow itam kon ku baax nga yàlla na la yàlla def mag te barkeel la yow itam vraiment lu baax rek a baax kuy wax rek waxal lu baax wala nga noppi waaw surtout réew moo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp a bokk ñëpp bokk Sénégal ñëpp bokk moo tax ku fi def defal defal lu baax rek damay wax ne Sénégal bu fi jéyee amee fenn jéyee ja yóbbu fukki bakkan Sénégalais bu nekk am na ci mbokk loolu la yàlla dogal bu jéyee amee moo xam accident la wala lu mën ni doon jéyee ja ëpp yóbbu lu ëpp fukki baakaan Sénégalais bu nekk am nga ci mbokk réew mu mel noonu nag ku cay dund da ngaa war a wax lu baax luy saxal jàmm luy saxal jàmm ji waaye xëcc saw làmmiñ rek lu la neex wax loolu ëpp naa def ëpp naa def rawatina ñi nekk ci réseaux sociaux yi nañ def attention ndax nit. buy taal musiba da ko war a wóor na dana ci mucc nit ku am xel suy taal lu mën a jur musiba da ko war a wóor na dana ci mucc waaye mbirum société mbirum mbootaay kenn mënu caa mucc yow dong moo tax yàlla wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xas yàlla nee na bu leen taal aw ay aw ay bu takkee kenn du ci mucc ñi ko taaloo nag ñi ko taaluloo nag ñe seetaanu ñu taal ko ñëpp ñëpp la ay wa di di yóbbu alaxira yàlla ñu ci yàlla musal kon yow wax dëgg yàlla ñëpp war na laa roy ci loolu mooy wax lu baax nit day wax lu baax yant bi nee na koy wax waxal lu baax wala nga noppi waaye taxaw temm ci jàmm ji fi nekk ñu jële ko fi man damay wax ne dafa mel ni dafa am benn groupe boo xam ne nii senegal mel daf leen a neexut dañoo bëgg senegal mel ni réew yëpp di am ay comme réew yëpp di reyante comme réew yëpp di lorante comme réew yëpp dafa mel ni dafa am ñu loolu gene ñu taxaw temm ci jële ko fi moo xam ci bitim réew la nekk wala ci biir réew mi waaye bët bu set nga gis sénégalais bu def loo xam ne da xam ne kii dafa yéene ay jàmm ji fi nekk jóge fi loolu nag laa xamul fu ñu amee garanti na ñoom bu ay amee danañ ci mucc loolu laa xamul xam naa bu dee ñi nga xam ne sax ñoom am nañuy pexe am ay yeneen nationalité am alal ju ñu lijjanti ba tabaxee ko kër feneen ñooñu sax xëy na bu ñu taalee réew mi ñoom mën nañoo rocceeku ñibbi waaye sama classe gi nga xam ne amuñu fenn fu ñu yaakaar fu ñu teg seen wet tëdd nelaw ci àddina bi fu dul senegal ñun dey buñ sañoon kenn du taal réew mi bismillah mbokk bi bismillah salaamaaleykum bismillah salaamaaleykum aleykum kan benn buur la. benn buur. santul Diop. benn buur buur bu lay bi mbaa santul Diop. waaw Ba la Ba. ah def. bismillah ah malheureusement sama buur boobu de moom xam naa ne nguuram gi matut parce que bu matoon dana fexe ba téléphone bi bañ a dagg jërëjëf Siraj Ba. jërëjëf yàlla na ko yàlla fay yiw yàlla na yàlla fay ko yéeneem ndax amoon na yéene dugg si ci waxtaan wi xam na technique moo mel noonu rek su ko defee kon man borom bi bi nga won ñu rëy ñooñu ne leen taraanga yi ñu nekk bu mu leen nax mi ngi wax ci suurat al an'am aaya juróom benn alam yaraw kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum makkannahum fi l ma lam numakkin lahum wa arsalna sama alaykum alayhim midraara waa jaalna al anhaara tajri min taxtihim fa ahlaknaahum bi dunubihim wa ansha'na min baadihim qarnan aaxarin nee na seen teraanga ji bu mu leen ya bu leen jay seen pal yi pal yi bu mu leen jay am na ñu leen njëkk a falu am na ñu leen ëppoon ay tranga ma jox leen lépp luy teraanga jox leen kaddu ñëpp respecté leen lu ñu yëkkati mu jóg bismillah. allo salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. waaw Papa Oustaz. waaw a juba Diop. wala Diop la wala. Diop man sant man kay bu ma tuddee la ci koor gi de. koor gi moom yàlla yàlla nangu ziar bi. jërëjëf noo tudd. man Boubacar laa tudd Boubacar Kane. Boubacar Kane da def Kane. wallaahi émission bi baax na lool wallaahi xam-xam bi leer na lool. alhamdulilah ñu sant ko yàlla. kontaan nañu kan lool. man nag tey jërëjëf dafa mel ni moom itam eh, génn yàlla na ko yàlla fay yiw eh, ñoom ñëpp ay mbokk la yu dugg di nuyoo rek yàlla na leen yàlla fay yiw xam naa dana am ñeneen ñu dugg ñoo xam ne dañ wax tem danañ wax ci tem yi bu baax bu baax bu soobee yàlla incha allah. ñu ngi leen di xaar ñoom itam su ko defee ñooñu la seen nguur gay yàgg-yàgg lañuy man-man seen bopp bis ñëw na ma toroxal leen ndax bakkaar yu bari yu ñu def jële leen fi jël ñeneen teg leen seen place kon daal mbokk jullit yi ma bi dafa ñëw di mottali déggiinu ma bi ko jiitu te mooy xikma bi doon wane ne ndogalu yàlla yi coono yi muy àndal xikma la xikma la suñu njëriñe ci nekk moo tax waaye tey li ci dolleesku bismillah allo salaamaaleykum ustaz aleykum salaam wa rahmatullah yow la kan man la Paate Thiam école normale Paate Thiam na def Thiam ñu ngi lay ziare oustaz ñu ngi lay ziare a wér. naka waa école normale yëpp. ñu naka mbokk yëpp naka xale yi mbaa kenn tawatul. alhamdulilah Ndiaye Thiam Thiam ñu ngi ñu ngi ziare oustaz Mouhamed Lo. waaw waaw docteur Moussa ak ak Sayid Xuma. Ah, waaw Seydou eh, moom Seydou léegi la màgg bari xam-xam rek ma xam-xam waaye sama élève la woon. Ah, ah, <laughs> léegi léegi nag moom moo dàq <laughs> ah waaw nga dëgg. bisimilah bisimilah émission bi neex na trop. jërëjëf jërëjëf ba avant weeru koor bi yëpp ñu ngi doon topp ci ci ci ci ci ci émission yi. jërëjëf Thiam jërëjëf ko doon topp bu baax a baax a baax rawatina nag ci biir weeru bi. jërëjëf Thiam jërëjëf Thiam. waaw dëgg yàlla man daal daal bi ma bi ma bi bi ma gisatul oustaz Barham Diop ba léegi wax dëgg yàlla lépp lu ma dégg ci rek ah. wallaay wallaay émission mënu ko tardé yàlla nañ ko sant yàlla saa yu ma xëyee rek di ko déglu bu soobee yàlla nañ ko sant yàlla nañ ko sant wallaay wallaay wallaay wallaay ñu ngi lay siyaare bu jërëjëf Thiam dina ñaanal yàlla yàlla guddal sa fan. amiin ñu bokk amiin ñu bokk Thiam. dëgg yàlla duwalaatekat wax dëgg bu ñu doon def ni yow rek wax man ñu bëree ngi def ni man am na ñu bëri ñuy man jërëjëf leen di delloo ziar ñu ngi leen di delloo ziar di jaar yàlla mu jàppale leen yàlla na ngeen génn ak jàmm ba jàngale ji bu ngeen génnee te bañ a bari bari geraw gaaw leen génn jàmm te dem jàngale ji réew mi soxla na ñu jàng soxla nañ ñu jàngal ñi ñi xamut su ko defee yàlla xéewari leen bu ngeen ñëwee ngeen bañ geraw lu bari su ko defee kon ñu bàyyi xel loolu euh, ne euh, borom bi lim teg ci ne lu mu la teg xikma la mooy lu mu la teg itam yërëm laa tax mu teg la na mu la na mu gën a woyofe ci yow la la ko tege léeg-léeg nag mu métti waaye métti gi du tax nga defe ne dafa soxor ëpp naa def yàlla soxorut wax naa ci misaal demb docteur bi nga xam ne moo moo lay piqûre yéen la jàmm dong moo tax mu lay pikiir bismillah bismillah salaamaaleykum aleykum salaam wa wa barakaatu. yàlla yàlla na ngi ziar bi yow la kan. Moustapha Diakhaté. sëñ Moustapha na nga def Diakhaté. ñu ngi leen di ziar. Diakhaté bisimilah Diakhaté bisimilah. ñu ngi leen di ziar di leen yàgg a topp lool topp leen lool nag. yàlla nañu yàlla boole sopp Diakhaté yàlla nañu yàlla boole sopp. ñu ngi ñu ngi rafetlu xam-xam bu baax. jërëjëf jërëjëf Diakhaté jërëjëf Diakhaté. jàppale daal fan la suñu jàkkaarloo yow ci télé bi daal ndekte lool la ñu am ci yow. ah yàlla nañu yàlla boole sopp yàlla nañu yàlla boole bége. yàlla nañu yàlla boole bége jërëjëf yàlla na yàlla nangu ñu bokk ñu ngi leen ñaanal jërëjëf. yàlla na yàlla jërëjëf Jaxate jërëjëf sëñ Moustapha jërëjëf Jaxate ñu leen di ziar bu baax di leen ndokkeel ci weeru koor yàlla na yàlla nangu yàlla na yàlla nangu ah, yàlla wax de moo tax mu teg ñu koor yàlla nañ ko ci amee te mooy ragal yàlla yàlla nañ ko ci yàlla defal ndax moom mooy affaire moom rek mooy affaire jërëjëf Jaxate ñu ngi ziar njaboot bi jërëjëf Jaxate jërëjëf jërëjëf Jaxate misaal ma ma ne docteur bi bu lay piqûre Euh, wax dëgg yàlla dana def lu mu man pour piqûre bi bañ a métti waaye du tee mu métti waaye yow xam gi ngay xam yéene moo tax lu piqûre bi métti métti même boo yuuxoo du tax nga mere docteur bi doo ko mere da ngay da ngay da kontaan ci moom loolu moom la war a doxal suñ diggante suñu borom ndax suñu borom moo ëpp yéene docteur bi ci ñun moo ëpp docteur bi ci moo ëpp itam man-man docteur bi ci ñun kon su piqûram méttee nañ ko muñ nañ ko muñ rek te xam ne suñu soppee moo ñu piqûre bismillah waaw ziar nañ la yàlla na yàlla nangu bi yow la kan kontaan ci yow Mouhamed Siraj Ba moo ñëwaat baax baax baax sant yàlla bismillah baax bismillah baax ziar la te yàlla na yàlla nangu ziar bi baax bi jërëjëf Ba weeru koor bi macha allah. waaw ñaanal leen télé bu baax na ngeen ñaanal télé bu baax a baax. waaw waaw waaw ñu ngi leen di ah. ñaanal tey bu baax. wax dëgg yàlla borom télé bi ko am yéene jëriñ xeet wi la. wallaay ah. wallaay ah. dëgg la lu am la. dëgg la dëgg la ñu ngi déglu émission émission diini yu fa jàll yëpp ñu ngi leen di déglu wax dëgg yàlla yëpp fa jaar yoon. jërëjëf Ba jërëjëf Ba. waaw ñu ngi doon déglu léegi euh, oustaz Maodo Faye bu mu jeexale waaw mu ngoog. ku baax la ku baax la mooy tam ku baax la suñu soppe la suñu rakk la dëgg la amuñu jotu dëgg la dëgg la dëgg mais ñu mu ngoog mu ngoog ba mu ngoog ba. waaw mu ngoog jeex na. yow suñu yow yow ñoo bokk mbuus. waaw kontaan nañ tamit lool. lool Ba jërëjëf Ba. yal na yàlla nangu ñu bokk. yàlla jërëjëf ba jërëjëf ba jërëjëf si rajo Mamadou si rajo ba jërëjëf. d' accord d' accord jërëjëf ba jërëjëf yàlla na yàlla fay ko yiw moom itam yàlla na ko yàlla def na yitte xam nga jot euh, kàddu gi fii ni mu xawee dëgëre nga def ko mu rate nga defaat ko ku am yitte moo ko man loolu day wane yéenam ci àgg si pour wax yéenam ci émission yi am ci télé bi yàlla na ko yàlla fay yiw yàlla na ko yàlla fay yiw yàlla na ko yàlla fay yiw kon ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax incha allah su ko defee réew mi ñu fexe jàmm di fa am nañuy wax jàmm nañuy def jàmm réew mi amuñu dara tus lañ amul lu dul li ëpp solo li nga xam ne ku ko amul loo am du saf ci yow mooy jàmm jàmm lañu yàlla xéewale jàmm jooju nag mën nañ koo ñàkk jàmm ju ñu dul ñàkk amul fenn jàmm yàlla ci ay loi historique la koy tënke jàmm yàlla ji ci ay loi historique la koy tënke dangay ngay respecter jàmm ji sax soo jalgatee loi yi jàng jàmm ja dem amul fenn fu jàmm munta munta deme fu mën a gàddaay amut ajuwul ci mbaax amu ci ndax dëgg la yàlla xéewale nañu ay nit ñu baax yàlla xéwale nañ ay nit ñu baax ñu baax lool te seen mbaax gi feeñ na fu nekk feeñ na ci ñun sax feeñ na ci suñu doxaliin feeñ na ci suñu waxin feex nañ suñu jëfin waaye nag sartu mbaax gi continuer fi mooy li fiy tënk mbaax ñu continuer ci rek te mooy di def lu baax di wax lu baax di yéeneente jàmm kese nangu ku wuuteeg ñun gisin nekk fi nangu ku wuuteeg ñun lu mu gëm nekk fi nangu ku wuuteeg ñun lu mu xalaate nekk fi loolu moo fi téye jàmm ji ba léegi bis bu ñu soppee loolu te mooy bëgg fee nekk ñun dong ñun ñun waa diw dong ñun waa diw dong ñun dong ñoo fi war a nekk wala ñoo fi war a man wala ñoo fi war a wax su boobaa jàmm ji day daal di waaj kon nañu bàyyi xel euh, dëkk bi nañ bañ di encourager ñi nga xam ne suñ ko yëgee suñ ko yëgut seen wax luy yee fitna la ci dëkk bi nañ bañ di encourager ñi nga xam ne buñ ko yëgee buñ ko yëgut seeni wax mën naa yee fitna ci dëkk bi bu leen kenn encourager waaw ku leen dégg na leen décourager ndax ñu bañ a cee ñu bañ leen a toppandoo ndax su fekkee yàqkat bu ñëw ñu ne am na droit ci lim mu wax yàqkat bu ne ñu ne am na droit ci li mu wax loolu du tekki lu dul ku bëggatee wax wax même bu fekkee sawaan ngay wax loolu nag munta am cim réew réew ma di jag réew ma di bañ a tas réew bu fekkee lu fa waay xam wax ko léegi mu tas benn werante ne nekku li naan amul tabu loolu wérut tabu am na am na loo xam ne ku ko xamit doo ko wax ndox soo ko waxee tas adduna mag ñii dañ daan wax ne penc mu jàmm yendu penc mu jàmm yendu maga fa xam lu mu loolu moo wér amul penc fu fu fukki nit daje rek ak foofa fu mën a doon même bu dee ci biir jàkk su kenn ku nekk ci fukki yooyu wax lam xam rek léegi yat jóg amul fenn fu fukki nit di daje kenn ku ne wax lam xam lépp rek fukki yat jóg yat jóg yat yat daal di jóg donc fu jàmm am rek nit a fa xam lu mu waxut kon bu ñu xam lépp li bu ñu wax lépp liñ xam bu ñu may occasion nit ñi di wax liñ xam lépp loolu musiba dong lay jur kese loolu musiba kese lay jur buñ ci encouragé kenn buñ ci encouragé kenn waaw liberté warul tekki ngay wax luy taalum réew loolu du liberté loolu yaree diku la yaree diku libre ak yaru du benn yaree diku libre ak ak yaree diku du benn nit ku libre ki day xam ne liberté mu ngi yem fi fi liberté ñeneen ñi tàmbalee nit ku libre ki mooy comme buggul nit ñi wax lépp li liñ xam ci moom day wax ne man tam du ma wax li ma xam ci ñëpp mu jeex amul kenn ci ñun koo xam ne d'abord bëgguloo nit ñi xam la bismillah. wa rahmatulah. aleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. yàlla na yàlla nangu ziar la kan. Abdoulaye Dieye li ngay wax. Abdoulaye Dieye. waaw Abdoulaye bismillah Dieye bismillah Abdoulaye. bismillah Dieye ñun dañoo kontaan a ngir yàlla. jërëjëf Dieye bismillah Dieye. ñoo xam nañ ci kontaan bi ñu ko daal daal moo tax ñu dagg suñu liggéey pour wala ngir yàlla jërëjëf yàlla yàlla nangul ñu wallaay yow li ngay wax dafa mel comme comme euh, omo ci tilim tilim rek ñu sant ci yàlla rek ñu sant ko yàlla rek yow xol yi xol yi tilim yaay suñu omo ngir yow wallaay yàlla xam na ko yàlla xam na ko jërëjëf Dieye jërëjëf Dieye jërëjëf Ablaye jërëjëf Dieye dafa am lu baax lu baax si ñaanal nee na lépp lu baax ci àdduna waaw yàlla ñu yàlla may la ci gën a baax amin yow nag maa lay seedal ne yow dëgg yi ngay wax mooy dëgg yi gën di gën a baax ci dëgg yi ah amin yàlla na ko yàlla def waaye yàlla na ko yàlla boole ci yu baax rek man bu bokkee ci yu baax rek ma daw ba rëq. amiin yaa rabbi jërëjëf jërëjëf Dieye. parce que day na jamono joo xam ne nit ñi dañoo xaw a ci côté yu da bëri bëri. dëgg la Dieye dëgg la Dieye. Euh, rëq yi may dugg rëq yi may dugg. waaw wallaay kilifa yu ba nga fa nekk rek yow yaa si yaa si ma kilifa yàlla baax na Dieye. yàlla baax na Dieye bu bu bu wax mu ba yoon wax yaa incha allah. jërëjëf Dieye jërëjëf bu may wax bu may waxee téeméer nit bi kenn jëlee alhamdulilah. jërëjëf Ndiaye yàlla rek. wallaay ñu ngi sant di la gërëm te yàlla tax. yàlla na yàlla nangu yàlla na yàlla yàlla na yàlla boole si gërëm. amiin yaa rabbi jërëjëf Ndiaye jërëjëf Ndiaye jërëjëf jërëjëf Ndiaye jërëjëf Ablaye Ndiaye jërëjëf jërëjëf Ndiaye jërëjëf ñaan yi am na solo yàlla nañu ko yàlla boole ñaan yi am na solo yàlla nañu ko yàlla boole ñaan lu solo yàlla na yàlla nangu su ko ñu bàyyi xel loolu loo xam wax ko du wax loolu du wax ñu réew ñi dong ñoo théoriser loolu ñi nga xam ne amuñu benn souci lu dul seetaan musiba ak fekke ko ñooñu dong ñooy théoriser lu waay xam ma na ko wax pas tabu tabou wérut ndax kenn ku nekk ci ñun bëgguloo ñu xam na am nga loo loo lu nekk ci yow te bëgguloo kenn xam ko waaye waxuma sax li nekk ci yow te bëgguloo kenn xam ko waaye li nit ñi xam ci yow sax bëgguloo ñu wax ko ak ku mën a doon nag ki gën a woote liberte am na lu nekk ci moom bëggul kenn xab ko am na lu nit ñi xam ci moom te bëggul kenn wax ko su ko defee defal ni nit ñi rek defal ni nit ñi rek ni nga bëgg nit ñi mel ko def ko rek mooy téel sa làmmiñ ci li nga xam ci nit ñi te wóor la te tuuti lool téel sa làmmiñ ci li nga xam ci nit ñi te mu wóor la te loolu tuuti lool rawati nag ngay wax ci loo xam ne xamuloo ko te li ëpp ci li ñuy waxal nit ñi du lu xam lu ñu leen yéene la rek waaw lu leen yéene la rek léeg nag nit ki yéene la sikk daal la koy daal la koy askanale loolu tam kenn munu ci dara waaye daal rafetut te itam du tax a am jàmm kon suñu réew mi même pétrole bee gaz bi bu fekkee dafa nar a indi fitna yàlla na ko fi yàlla jëlee yàlla bu yàlla bu mu agsi waaw su fekkee pétrole gaz ak benn xeebu xewal boo xam ne mën na fee am su fekkee bu ñëwee tas ndëkk bi yàlla bu mu ñëw parce que ñun fi ñuy toll nii ça va très bien li ñu amagum nii baax na nañuy añ di reer di ndëkki njóobee nii nañ ma baal nañ ma damay joxe misaal rek ndax suuf si baax na nañ ko bay nañ bay ci suuf si bay mi li war a bay jeexut suuf si yépp a neex a bay waaw yàlla jaa ngi taw te bu yàlla ji taw itam biir suuf si am na ndox mu fi nekk te comme ci loolu lañ nekkoon di am jàmm bu fekkee lii dolleeku si su delleeku waa su delleeku see fekk bàyyi fi jàmm ji na ñëw ndax jàmm du doy li nar dolleeku si su fekkee bu ñëwee bàyyi fi jàmm ji na ñëw ndax jàmm du doy waaye su fi naree jëlee jàmm ji na toog ñun soxlawuñ ko ñun jàmm ko gënal kon nañu téye lam nañu téye làmmiñu waxkat yi ñaaw yi nañu téye ci làmmiñu waxkat yi nañ leen yar nañ leen démystifier nañ leen dénoncer waaw nañu téye làmmiñu waxkat yi njaaxum yi nañ téye seen làmmiñ nañ leen dénoncer nañ leen yar ndax nit buy yàq day yàq lu mën a defar yàq sax baaxut waaye yàq bi ci tane mooy nga yàq loo mën a defar te am réew ku ko yàq doo ko mën defar réew yi yàqu yëpp ñu ngi nii taxaw te tit bu te tëj mënatuñ koo defar kon nag bu ñu nangu am samba booy am samba booy rëy làmmiñ rek tax lu ko neex wax même bu fekkee la muy wax mën naa jur musiba ci dëkk bi nañ ko dénoncer nañ ko démystifier bu ko kenn faral bu ko kenn jàppale bu ko kenn encouragé parce que moom xamul boppam sax bay xam réew mi loolu daal mbokk yi mënuma ko woon a ñàkk wax ci bis bii nga xam ne incha allahu pour jullit yu bëree bëree bëree bëri moo leen desee ci kor gi eh, ñi ñaan yàlla yàlla may leen ñu àggale ko ak sago yàlla na yàlla nangu koor gi yàlla na yàlla nangu kooru ñëpp ñi waru wari démb ñi wari tey yàlla na yàlla nangu kooru ñëpp yàlla la ñuy wooral kenn ci ñun wooralul moromam kenn ku ne borom bi la ko siqal la dox diggante borom borom xam na ko léegi nañ ko ñaanal yàlla rek yàlla fekk ko ci yéeneem jooju nangul ko jëfam jooju wax naa wuute korit yi neexut rafetut waaye nag mën naa ànd ak jàmm wuute korite gi wuute tabaski gi neexut rafetut waaye mën naa ànd ak jàmm waaye kenn du fi woree bis bu dul bi ma wari kenn du fi tabaskee bis bu dul bis bi ma tabaskee loolu moom mën naa jur fitna moom loolu moom mën naa jur fitna te du tax nga am ko waaw walidalika xalaqahu xalaqakum waaw mën naa mën naa jur fitna ndax yàlla daf ñoo binde di wuute ci yenn mbir yi waaye bu ñu sellalee yéene ji rek jàpp na ñooy incha allah ñu ngi jégalu baax a baax a baax a baax su ko defee kon ñu ñaanal kër gi ñaanal kër gi baax a baax a baax eh, ndax yéenam ci jëriñ xeet wi yéene ju fës la yàlla dolli ko borom kër gi ay jumtukaay yum continuer di mën a jox service boobu jullit Sénégalais yi di jox service sax Sénégalais yëpp sax mboolem ñi mu àndal liggéey boobu te mooy équipe yi ko ci jàppale yëpp yàlla yàlla na leen yokk yàlla na leen yàlla yokk ñoom itam bañ yëg mboolem mbokk yi nekkoon ci kër gi di fi def ay émission yàlla na leen yàlla fay yàlla na yàlla nangul leen seen jëf yi fay la ñoom ñëpp nag moo xam ci ñiy def euh, euh, euh, suukaru koor di suñuy rak di suñuy jarbaat ñoom oustaz Cherif Mamina oustaz euh, euh, Abdourahman euh, Gaye tafsir ñoom tàmbalee ko ci ñoom ndax ñoo fi gën a ñoo ci gën a xumbale nag wax dëgg yàlla ñoo ci gën a bëri ay fans aussi yàlla na yàlla nangul leen te fay leen yiw ñoom sama jarbaat oustaz Ablaye Gaye sama jarbaat sama jarbaat bi nga xam ne waaw sama njare baat la incha allah jar jarbaat mooy jarna na jaam ndax bu njëkk boo amee jarbaat boo bo boo boo boo jaaxlee mën nga koo jaay donc sama jarbaat lenq bi nga xam ne mooy Mouhamadou Lamine Dramé moom itam mbokk yëpp ngi lu ay waxtaanam yàlla na ko yàlla def mag te barkeel ko barkeel njabootam euh, su ko defee waaw ñoom ñëpp daal ñëpp rek da ñëpp ñuy wax fii daal oustaz Habib Ly macha allah alpulaar yi nee ko xam na su ma déggoon alpulaar dina neex lool parce que dafa mel ni li ngay wax neex na lool yàlla ko yàlla may moom itam wér ak alaaji baa bi koy jàppale moom itam léeg-léeg Ah, Abdou suma jarbaat sama rak moom itam sama xarit Alaaji Maodo Faye mu fi jóge léegi moom itam rafet kàddu lool lu baax lu baax rek lay wax ci ñëpp rawatina man te loolu ku baax rek koy def ko kenn ku ne la nga am ngay maye faaqidu shay la yooti nit du maye lu ma amut ku amul mbaax doo ko maye kon moom itam ku baax la wax dëgg yàlla jullit yi ñu ngi ñu ngi ci yóbbante ci moom di kontaan ci ay waxtaanam su ko defee loolu moo doon wax ji eh, waa kër gi soxna si soxna si soxna si nga xam ne moom itam wax dëgg yàlla. mooy kirij bi mooy kirij bi waaw li sëñ Mansour di wax kirij la moom bala ngaa xam njëriñam rek nga paan soo paanee rek génne ko mu dépanne la dem toogaat ne cell ce gannaaw soxna soos itam moom itam yàlla na ko yàlla may wér sàmmal ko njabootam barkeel dundam barkeel njabootam soxna su baax la soxna si nekk ci kër gi ku baax a baax waaw ku am yitte la ci liggéey bi ñuy def jàppale na borom këram bu baax a baax a baax yàlla na ko yàlla nangul soxnaam soxna soxna Sarr madame Sarr moom itam macha allah waaw waaw yitte yu bëri la am na lu muy lijjanti lool ci suuf te lu am njëriñ lay doon pour ñëpp moom itam fi mu nekk baax na yàlla na ko yàlla dëgëral te sàmmal ko ay borom këram sàmmal ko njaboot sàmmal ko borom këram sàmmal ko njabootam ci barkeent bi ñëpp rek ñëpp rek ñu nekk ci kër gi ñëpp rek ak mboolem télé yi nekk ci Sénégal te doon def émission diine ci ci koor gi télé yooyu yëpp yàlla na la yàlla suqali rajo yi nekk Sénégal te doon yàlla na yàlla nangu eh, jëf jooju te yàlla na yàlla may ñu dégg wax ya fay joon jib njuumte te fa amoon yàlla na yàlla jéggal ña ko def njuumte yi nag moom bëri na lool dëgg yàlla loolu ko ko waxul itam waxuloo dëgg njuumte yi nag bëri na trop trop trop trop trop yàlla na fekk ñi ko def juuma tax yàlla na fekk jubluwuñ ci yàq waaw waaye yàlla na fekk juuma tax kon njuumte yooyu yàlla na ko yàlla jéggale waaye yàlla na yàlla suqali Sénégal yàlla na fi yàlla saxal jàmm yàlla na yàlla barkeel Sénégal maa ngi leen di jox daje kon incha allahu ajjuma ji di ñëw waaye yaakaar naa ajjuma ji sax mën naa am comme dañ ci mën naa am ñu julli ji xëy na suñ émission bi mën na nekk bu ñu fa tegee émission itam rediffusion lay doon waaye mën na am du ñu mën a def émission waaye télé bi moom dana leen tegal ay émission yu am solo ba ngeen kon maa ngi leen jox daje incha allahu bu koor gi jàllee ajuma ji ci njëkk euh, émission bi ku mu mën nga koo dabu suba ci 7 heures du incha allah Eh, jataay bi ngeen di ko topp émission bi yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla jàppe muy jataay jaam yàlla lu ngeen fi dégg te muy yiw yàlla na yàlla xiir ci man koo jëfe su ko defee ñoom tey ñu baal ñaan borom mu jégal ñu ko rek waaw su ko defee yaa eh, dolliwaat ñaan rek kale yi nekk ci technique bi yàlla na yàlla sàmm leen yàlla na yàlla barkeel seen dund yàlla na yàlla may leen réussir seen projet asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص